bismil ilaahi déglu leen manam ma way gu maam bàmbay boroom mooy bismil ilaahi déglu leen manam ma way gu maam bàmbay boroom mooy bis bu rëy bamba mu jihaat ba sampo fi màggal gu jar jullit diraam jullit diraam ba yegg si fi ahmadu bamba mooy ki dëddu àdduna yàlla fayee ko bis bu rëy bu màgg na ahmadu bamba moo jëfal xuraanu looloo waral muy xaritub raxmaanu Ahmadu Bamba fi taalif lu yéeme lool yàlla fayee bis bu rëy bu am bi yool Ahmadu Bamba fi sagal soo daana bañi damoo ca kaw ña bi daana màggalam gi ku ko màggal danga màgg doo metit wu sa fan dana gudd màggalam ku ko màggal danga màgg doo yëg metit wu tar sa fan dana gudd yaari ganaar ak yenti béy ak yenti xar ak yenti nag yenti gëléem 18 safar yaari ganaar ak yenti béy ak yenti xar ak yenti nag yenti gëléem dix-huit safar yow mi jullit bul waaj jugal dem Tuuba santale Bamba Yàlla ngir bis booba mi jullit bul jugal dem Touba jugal dem Touba jugal dem Touba jugal mi jullit bul waaj jugal dem Touba santale Bamba Yàlla ngir bis booba bul fàtte sa kaamil ba baa sa boo ko defee yow mal jazaayu doo fa rus boo fa demee bul fa jëlub cartable waxuma laak sàcc rajo ki mi jigéen bul def ca tuubaa bopp neen dalay jural sa magal gi gi gi sa magal gi lépp di neen yow mi jigéen moytul bu baax xeesal fa baa sol bon muural sa cër sellal fa moytu faa yóbbu ab pirig baa yéen góor ñi tam bu tafu mbaa mbaa di riisu moytu faa wéetoo ki jigéen ci ruq boo ko defee sa màggal gi dana yàqu yéen góor ñi tam buleen tafu mbaa baa diriisu moytu faaweetoo ki jigéen ci roq boo ko defee sa magal gi dana yàqu moytu faa tooñ moytu faa tux baa sax nga dem fa di fa kart boo ko defee bisub fay ba da nga perte polise beeg bi ak gendarme na ngeen woyof te nooy mel nepp tàndarma yow sëfër bi te yàl ta ngay daw nànk te fum xate te xaaral nga teggi sa tànk yow bi te yàl ta ngay daw nànk te safar bi teyal tangay daw nank te fum xate xaaral nga teggi sa tànk te bul fàtte ndénkaanu sunu mam fallu mam fallu ne bu ne yay nga ni yollu yow bi teyal tangay daw nank te fum xate te fum eh, eh, eh. la xaaral nga teggi sa tànk te bul fàtte ndinkanu sunu mam fallu mam fallu ne bu ne yayi nga ni yollu yow jaaykat bi jaayal set jaay lu jar bul bëgg bay na ngay wax di wor yow mi jënd bul jënde xaa xaalisu foo dalay jural sa màggal gi gi gi sa màggal gi lépp di foo yow mi jënd bul jënd xaalisu foo da jural sa màggal gi gi gi sa màggal gi lépp di foo maa ngi taxaw ñaan yàlla màggal gi wey ci barkeb borom màggal gi Sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na yàgg fi bëtub safaan baabu iñaan baabu iñaan romb ko fi